campagne Sonko loolu lu ma ko indil défendre bi may défendre Sonko di défendre sa bësu Sonko moo rejaillir ci man jagam nag bësu Sonko mooy rejaillir ci man ce qui veut dire que bi may indi fii mhm. damaa toog nan laay def ba dem benn booy ne ma foo a dem ma ne ko fay ci kanam mu indi ma bi fii te manoon na maa fayu mu ne ma fayu ma démb damaa dem ci ab supérette di jënd ay gâteau waa dikk ci kees gi di fay mu ne ma doo fay ma ne ko lu tax mu ne ma sonk la donc. yaa ngi noos ci sonko rek maa ngi noos ci sonk li tax may noos ci sonk nag. Hmm. muy recharger ci man. Hmm. mais sonk ci bopp man sama oto Sandaga bu fa paanoon gaa yi yëkkati ko. cum sama oto bu paanoon Sandaga gaa yi puus ko walla ñu yëkkati ko ba noppi nag jox ma paas ne ma demal léeg-léeg bi la damay dox Sandaga ba ba yàgg benn booy ne ma doyee wuyul feewaay ma wuyu waa ji yor oto ma ñëw ba ci moom moo ñu juróomi billet cinq mille dix mille franc jox ne ma doyen lii maa la ko jox. dégg nga na à cause de Sonko. ak yeneen i teraanga yu dul jeex yu may defal. kon xanaa lii moo tax kon xanaa lii moo ci. ci ci ci ci défendre Sonko. Sonko défendre ma ko sama bopp laay défendre samay doom laay défendre ak samay jarbaat ak la nation sénégalaise et l'Afrique ñun danoo am ay ressources. pays yëpp daw wut mm-hmm. à cause de la fermeture. Euh, de de l'Ukraine mhm. xam nga Ukraine pétrole daana fa jaar ak gaz di dem ci gars yi léegi fermé nañ ko mhm. Arabie Saoudite ak les pays du Golfe ña nga tourné di xooli Union soviétique donc ñun yàlla jox na nañu gaz ak pétrole ak euh, ak une façade maritime boo xam ne bii mën nañuy def ay port pour évacuer pétrole bi vers l'Europe te di si entre le Sénégal et la France je crois que cinq cinq mille matu cinq mille kilomètres sax boo duggee avion c' est cinq heures six heures de vol donc soriwul mhm. gannaaw loolu te c' une zone boo xam ne bi insécurité amu fi kenn du piraté ay bateau wala di koy jéem a yàq wala dara donc mhm. gannaaw loolu am na fi loolu nag moo tax ñëpp daw wut sinu mhm. daw boobu nit ñi daw wut sinu no Sonko ne attention yéen a ngi daw di ñëw de waaye bu ngeen accès yi contrat yi dañ koy seet ngeen am ci li ngeen ci war a am ndax yéen a yor technique bi ak marché bi ñun nag ñoo ko moom suñ suuf sol la d'accord dégg nga mocce mocce lay doon partage égard la ku ne am ci li nga ci war a am d'accord ñu ay contrat waaye bu ñu leen ko jox ngeen duut ko yóbbu comme ni ngeen def Gabon def ko Zaïre def ko Congo loolu duñ ko nangu loolu yi la Sonko wax loolu yi laa ànd ak Sonko moo tax Sonko day nit ku bëgg réew mi mhm. wax ko jëfe ko ku bëgg réew mi nag te àndoog Sonko man sa bëgg réew mi jaaxal na ma. loolu tax ma ànd ak Sonko. d'accord mais euh, manifeste bi nga jóge léegi Ousmane Sonko bokkoon na ci ñu doon woote ngir ñu amal ko. Mm-hmm. te moom kenn gisu ko fa. Mm-hmm. loolu aussi lu ko waral. ba ma fay jóge Sonko amu ñëw est-ce que Sonko dana ñëw est-ce que Sonko du ñëw ndax Sonko diggam a Casamance avion lay dugg du jaar par la route donc avion mën naa yomb qu'est-ce qui dit que Sonko nekkutoon këram di toog di xaar ba manifestation bi fees mu ñëw. yooyu yëpp point d'interrogation xaw ma ci dara mais nag sonk moom xam naa du nit kuy daw ku ne xam na fi Sonko lii ñu ko teg man bu fekkoonte ne man lañ ko teg dof na billahi dof na pression biñ ko teg ci bopp bi teg ko ci ay partenaire am dinañ tëj ku ne nii ñu tëj la metti na ci nit metti na ci Sonko metti goo xam ne gi Sonko normalement waroon na bu tëddee du nelaw te boo ko gisee nga xam ne kii c' est vrai que am na lu nekk ci kawam mais nit nit ku nekk ci jàmm la fit mi Sonko yor musuma gis homme politique bu ko yor gisuma ko fi. d' accord wax nga fi léegi F24. Hmm. mu di front pour 2024. Euh, waaw euh, amoon na fi benn kuréel gu buñ duppee woon M23. Hmm. ay jamono. waaw kuréel googu noonu la ko toxoon a jóg aussi bokk na ci yéen li leen tax a jóg ah. mu di fexe ba xeex troisième boobu maa nga ca woon M23. M23 troisième candidature oh. mais boobu réussir toon li nga xam moo ko taxoon jog moo di fexe ba sawaay du nekk maître Abdoulaye Wade du nekk candidat bii est-ce que mën nañ xaar ci yéen ngeen def exception M23 boobee nga gis waaw ak leader yi mu àndaloon waaw pression ba ak campagne bañ def ci Wade expliquer Sénégal yi moo tax Wade a été battu Wade a eu au premier tour 34 pour cent au deuxième tour 44 pour cent il a été battu. mais nekkoon a candidat quand même. mais nekkoon na mais xam nga lu ma la bëgg a wax. waaw buy ñëw bañ nga xam ne boo ca àggee am défaite man bañ ca àgg moo ma gënal am na neneen nu ma ko wan a waxee nag ci wolof waaye du tegginu. Ah. seen ab défaite. Mhm. nga xam ne lii boo fa àggee am défaite man bëgguma ko. te Macky Sall ak ñi ànd ak ñoom Benno Bokk Yaakaar bépp bu ñu demee élection présidentielle contre Sonko la défaite est certaine la défaite est certaine mais li ngay wax ni hmm. Barthélémy Dias génn na fi barke de moo njaay mais nga baal ma ci kàddu mais Sonko li muy war sax naan bu onze heures jotee élection yi jeex loolu amul parce que am na beneen puissance yoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi Barthélémy loolu gannaaw foofu la yem loolu moom mën naa la cee tontu ah Sénégal li nekk ci biir Sénégal maa ko gën a xam Barthélemy parce que man Sénégal des bafons dama koo xam juddoo ci àll ba di wax ak waa àll ba sama téléphone bi ñëpp laa ciy waxal ci biir réew mi mon réseau d'information est plus étoffé et plus élaboré que le réseau d'information de Barthélemy. maire de Dakar maire de la ville de Dakar de la ak yooyu man. yow dama yàgg poli fii mu ne bu la ci kenn wax région bu ne. Mm. am na fa ñu ma xam ñoo xam ne ñi ay personnes ressources ndax dama jaar ci parti yàgg parti social jaar AFP jaar grand parti nekk ci Idriss Seck ñëpp ma xam. expérience. ah e, e, expérience ak des relations humaines léeg-léeg damay téléphone euh, kër euh, kii comment ça s'appelle Taïba Ndiaye bi bi affaire bi amee. en direct laa laaj waa kër Pa Taïba Ndiaye waa Taïba Ndiaye ña fa dëkk. kilifa laa téléphoné ba Ndiaye na ko waay sa waay li may dégg seen dëkk bi ma mu ne ma li ngay gis moo fi xew carrément li xew. kon yow sondage def sa sondage boobu ba pare. fii taxe laay jël léegi ndax sama oto ña ñàkk essence doog naa ko wax essence bi boo cher ma jaay sama oto di ut oto bu ndaw amaguma oto bu ndaw di dugg taxi Jakarta moo ma indi fii léegi donc te man fu ma dem damay wax nit ñee ma xam fu ma dem maa ngi politique. kon yaa sondage bi daal euh, résultat yi nu muy demee non non résultat yi moom bii. Macky Sall benn Bokk Yaakaar ak yépp ci yam képp ku yor bañeeru benno benn parti ba jàmmaarloog sonk en deux mille vingt quatre mu tax a ñu. d' accord Sénégalais yi ko bëgg. d' accord léegi ñu wax ci dialogue bi ndax gis nañ ni fan yi dëkk bi yëngatu na la ko waral moo di dialogue bi dialogue boobu sax dem na ba. xar coalition boobu ñu duppee yeewoo askan wi jamono ji tasaaroo na ku nekk ngay <coughs> xalab sa morom euh, Khalifa Sall ak ñi mu àndal nee nañ accord nañ ci dialogue bi waaye Sonko ak ñi mu àndal nee nañ d'accorduñ ci lu tax xajaloo foofu. xam nga dialogue bi am na ñoo xam ne bokkuñu ci grand menu mais man dialogue bi boo ma déggee fan yi dama ne dialogue bi nañ ko def. ah bon dama ne Sonko ak Macky Sall ñoo ŋànk réew mi réew mi fi mu ne. non Macky moo waaw ak fa Macky Sall mooy président de la république. fii mu ne loi ko neex. sauf certaines lois exceptionnelles mën na koo passer assemblée mm. moo yor décret yi moo yor la loi de finance ak xaalis réew mi et lépp kii signe en notre nom à l'étranger mm-hmm. donc mooy borom doole ji au fond mm-hmm. waaye nag Sonko fii mu ne moom la nit ñi àndal xoli nit ñi boo ko mënoon a xar Sonko ci gën a nekk Macky Sall gannaaw nag loolu am na te affrontement mën nañ ko fee ci réew mi te bëgguñu ko te ñoom ñaar bu ñu juboo waxtaan ba juboo ci kàddu wax Sénégalais yi ne lii lañ juboo ñoom ñëpp ñu d'accord ci jàmm am te tension sociale am na tension sociale ak économique moo nekk Sénégal yooyu nag li mën a jur dafa bari te Sénégal yàlla def na yorunu tus ku yorul tus da ngay bëgg jàmm boo yoru tus ñàkk jàmm musiba la looloo tax ma ne Sonko hmm. ak Macky Sall ñoom ñaar hmm. nañu jàkkaarloo waxtaan man loolu laa tuddi jaloo kon yow boo doon boo doon digal Sonko da nga koy digal mu dem mu bañ a mu waxtaan ak Macky waaw bokk ñu tuddee ko wuy ji ñu ko leneen mu dem waxtaan dialogue gis naa nit ñoo xam ne sax ci euh, comment ça lan lañ passe kii ci forest la ñu passé plus forest plus forest la ñu passé nekk fii naan la dialogue la dialogue ñooñu bu demee ci dialogue bi lu ñu yóbbu parce que dialogue booy dem da nga yóbbu dara yow yoroo dara nga naan dialogue dialogue. kan la kan nga bëgg a gaaru du ma wax kenn laa gaaru yaa ma gën a xam. gis nga ah, mais père aussi déedéet du ma ko wax fii mooy na leer. déedéet bii de du leer. bu ah. fekkee bokk ah, yow man déedéet du leer kon kon waxtaan du leer ah <laughs> xam nga ki may may wax du kenn gis du kenn ñu bari la ku ne naan waaye il faut répondre au te ñooñu yow yaa ngi jàll ci plus for reste yow lay wax mais li ma jaaxal mooy yow yaa ngi naan Sonko na bokk te Sonko moom dafa bañ ne jalagul Sonko am na droit ne ne jalagul mais may itam am naa droit ne ko bokkal. bokkal waaw d'accord léegi euh, bu ñu sukkandikoo ci Barthélémy Diaz. waaw nee na li nga wax noonu. Mhm. jotoon naa am maanaam Ousmane Sonko moo jiite dialogue bi sax moom bokkoon na ci këru dialogue bi ci xolu dialogue bi. moo Macky Sall déggoo nañ ci waxtaan nañ ci mais Ousmane Sonko dafa mel ne kuy weddi loolu ba mu seet wécc. mu mel ni dama laa bëgg a wax leen mm. Ousmane Sonko. Mm. ak Barthélémy Diaz ba ñuy am relation fekke wu ko la waxante. fekkewuma ko sama yoon newu ci loolu duma ci ŋàppi duma ci wax dara duma ci wax ah, sama yoon newu ci duma ci wax duma ci wax lu ma ci wax ñoom lu ma ci wax Barthélemy mi ngi wax non Barth ngi wax keneen a ngi wax Sonko ngi wax ngi wax ñu ànd nañu wax oh, oh est-ce Sonko ñu ànd nañu ñu wax tey ñoo ñuy wax ñëpp mën nañoo wax ils appartiennent à des partis xañ na dañoo fekke man fekkewuma li ma bëgg bëgg na lii moo baaxal Sénégal man loolu laay wax li Barthélemy wax ak li Sonko wax foofu sama yoon new ci man daal li ma mën a wax Sonko moom moo yor nit ñi moom la nit ñi àndal Macky mooy président jusqu'au vingt cinq février deux mille vingt quatre dama ne Macky ak Sonko ñoom ñaar nañu wax waxuma ma Samba bokk ci ma dem ba bokku ci mën nañ nag ñoom de leur plein gré ñu wut ku ñu àndal ci dialogue loolu man dialogue restreint laa wax waxuma dialogue boo xam ne bii palabre lay doon Massamba bokk ci Mamadou Goumba lay bokk ci Demba bokk ci ñëw ci dialogue te yoroo dara looy wut looy wut d'accord léegi ñi nga xam te ne aussi nee nañu soo gisee xalifa Sall accepté li nga xam te ne moom moo nekk dialogue bi hmm? dafa bëgg a nekk coûte que coûte candidat ci élection yu dëgmal ndax may partagé la loolu loolu pourquoi pas Khalifa dafa war a nekk candidat Khalifa dafa war a nekk candidat bu ko soobee. mais si si si si condition yi maanaam bu ñu ko amnistie tey. waaw tey bu ñu ko amnistie Khalifa Sall war na mën a nangu. moi je ne suis pas pour l'amnistie. voilà moi je suis pour la suppression des articles là. L L yooyu yëpp ñu supprimer ko. pour permettre a kalifa d'être candidat et Karim d'être candidat man waxuma amnistie. amnistie ça prend du temps jaar assemblée coow li kuru ñu naan dégg nga politiciens yi sàcc nañ xaalis Sénégal ña ngay laggarante gannaaw man waxuma ko article L yi daal na ni ñu wax waxee ba supprimer ko ku ne mën a dem élection man loolu laa wax waxuma amnistie. d'accord ñi naan Barthélémy Dias ñoom Khalifa Sall dañoo wor Ousmane Sonko ndax yow looy partagé la seen taxawaay bi taxaw jamono ji. Euh, kii Barthélémy Dias. xaw ma lu mu seq ak Sonko xaw ma ko Barthélémy est maire de Dakar. xam naa ne Barthélémy s'il est maire de Dakar c'est grâce à Sonko loolu moom wóoru na ma ndax fekke naa ko. déet déet aussi père Goumba la loolu foo ko teg. Barthélémy bu nekkee maire de Dakar Sonko moo ko appuyé parce que Khalifa au départ était pour euh, euh, Soham maa nga foon Khalifa était pour Soham Barthélémy Sonko ko def de Dakar. parce que ci ay vote wala ci nan. Sonko euh, temps boobu ko mu àndal yaay jàll. ku mu wax ne ku àndal yaay jàll. ci la nekkoon bi kon nan la ci leeri taxawu. Ah, ñoom si ñoo ko yoroon ba tey. ñoom ñoom Barthélemy ah, yoru ko. ah booba yoroon mairie bi ñàkk ko. ñàkk na ko lu tax mu ñàkk ko ba Barthélemy jël ko loolu laa lay bu Soxna ñàkkee mairie bi te xalifa ko joxoon xam nga Soxna xalifa la ñu def ki génne. Mhm. Euh, délégation spéciale xalifa moo def soit maire de Dakar. bañ koy négocier gars yi def ay tractation maa nga fa. Mhm. bi yëf yi jeexee xalifa voulait ko reconduire soit mais Barthélemy nekk jóge fële nekk euh, euh, kii maire moo Sacré-Cœur la nekkoon maire. Mhm. après mu bëgg a nekk maire de Dakar. mais Sonko moo ko appuyé ba def ko maire u Dakar parce que Sonko moo gënoon a fort ci liste bi. mais mais li nga wax ni da koo weddi ba mu set wicc nee moom bu may dégg député bu dégg maire. boobu Ousmane Sonko. wax na dëgg kenn dégg ko kenn xamul booba mais. Ah, kon kooku nan la mën a ñëwee. waaw yëf day figé. tu crois que l' électorat est figé Sonko ñii mu yor am na fu ñu nekkoon foofa lañ jóge fekk si Sonko looloo may Sonko jeex donc Barthélemy bu naan dégg nga nangam ak naan l' électorat n' est pas figé Sonko xoolal euh, bi mu demee Saint-Louis fu mu jaar gaa yi gagné nañ Sonko maire Dakar bii bu appuyé toon Barthélemy Barthélemy du gagné mënut a gagné fan lay gagné. mun ta gagné bu ko appuyé wutoon du gagné Sonko c'est lui qui a fait de Barthélemy le maire de Dakar Mamadou Mbala ko wax. kon tey Barthélemy Dias war tey kon wartoon na yëkkati kàddu yi mu yëkkati. xaw ma lu mu yëkkati war na ko war ko parce que Ousmane Sonko nee na da doon da ko doon tuumal que ni euh, da doon wax ak le président Macky Sall di wax ak ay kilifa ci biir APR di enregistrer Ousmane Sonko. ma ne. loolu nga ne Ousmane Sonko ko wax ak Barthélemy ko wax sama yoon wu ci man li ma fekkee gis ko loolu maa ko fekke maa ko xam c'est la vérité Barthélemy si les maires de Dakar c'est à cause de Sonko c'est tout mën na nekk nag ah, mën na nekk pendant quinze ans maire avant Sonko mais lii moom Sonko ko def lii moom Sonko ko def man taxaw naa dégg Sonko ne fan la woon Barthélemy nit la koo xam ne kii li tax mu neex a àndal booy xeex boo geesee gis ko donc ko wax ma dégg dégg nga ko waaw mu ngoog mais ci kàddu ci kàddu Barthélemy Dias dama ko dégg mu ne defal na nit loo xam te ne ni maanaam bu ko ci yoon tegoon loxo tey ji cour d'assises lañ ko yóbbu et loolu lu ma ciy commenté man fekk fekkuma ko lu cour d'assises war a yëg yëgu ko Mamadou la mi di ab laalam di nelaw yëgu ko loo ci ma lu ma ci xam sama yoon newu ci te jenn waay fu ko neex xëyee waxi jenn waay fu ko neex xëyee waxi jenn waay su <laughs> <laughs> ko neex xëyee déedéet déedéet wolof la yow yaa ngi dëkk tuwaa njaarim bi war ngaa xam li ma wax foofu mooy digga boo ko doon toj mooy lan wax waay mhm. fu ko neex xëyee mu ne boo man bu fekkoonte ne damaa xëy rek ne jàllañ sa kër ak samay bagage nga ne a Mamadou Gumba la foo xëyee fan nga jógee bu ma neexee ne la